يا ربنا يا ربنا يا ربنا dolil ñu leer rabbana mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan à travers votre chaîne autrement bi TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar bienvenue dans votre émission GPS tey nag GPS Tour mu ngi ba Cambérène ñu daal di fi daral kan daal di fi dalal xale bi nga xam ne kenn dootu ko présenté fii ci biir Cambérène mais sans plus tarder dama koy bàyyi rek moom mu boppam moom mooy kan waxal ñu boppam ni mu tudd ak moom ci lan lay yëngu laay laay. laay waxtaar. présenté maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam. di ñaan Seydina Baye Abdoulahi mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal mbooleem xalifa yi nekk ci senegal gi yëpp fépp fu xalifa nekk rek ñu ngi ñaan yàlla yàlla yokk sa wetu guddal sa fan ci barki Baye Laye wut mënti yàlla saa di la nuyu di la siyaar yi ak bi nga àndal yëpp Laye Momadou Makhtar. kan mooy Mame Rane Laye. moom bu ñu koy wax dafay dafay xaw a jafe ci ñun ndax olof yi dañuy faral di wax naan saabu du fóot boppam. ba moo tax ñun daal suñuy jëmm yi mënuñ ci wax lu bari waaye xam na nañ daal maam raan laay jëmmale ju xeebu waaye nag jëmmale ju gëm Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam jëmmale ja nga xamante ni képp ku mu gis ngay kilifa diine dina la jox cër bi la yàlla jox waaye nag jëmmale ja nga xamante ni bëggul yëgul ci ambition lépp lu mu mën a am way bàyyi laay ak njabootam kese kese kese moom moo ñu ko gënal lii daal laa xam ni mën naa ko wax ci li ñu xam ci suñu bopp di ñaan yàlla mu jubale ñu. comme ni nga koy waxee rek loo xam Samba ma Masamba gën laa xam boppam looloo waral rek ñu ne woon Mame Rane nañu wax kan mooy moom moom si boppam mu waxal ñu boppam waaye ñun ñoo ko déggandoo Mame Rane nan ngeen ni rek fan si. yaa nabiyallaahi خير خلق الله بايلاي يا رسول الله يو بايلاي أيونن بدما yéene gan silama gidagaan wuyu ma baylay ya rasulallah yow baylay maa ngi ni amuma kenn faalewuma ay yonen sewema baylay ya rasulallah yow baylay yow la yàlla jubool koo xulool du ka xool sun nga ñépp pëdi njool sang be baylay ya rasulallah loolu ah, allah maam raan yal na yàlla wéral baat bi eh, li mu fi woy moom macha allah kenn du ci kenn du ci dolli dara daanaka eh, tey maam raan macha allah baat bi neex na lool li ma laaj mooy rek ndax yow lii sa passion la wala jërëjëf yal na yàlla nangu te jubal suñu suñuy xalaat te mottali ñu suñu yéene di rafetlu bu baax a baax question bi yaakaar naa ni ndonoo ngi ci waaye tim passion mi ngi ci mën naa ni bu ndono doonee kilo ci biir passion doon na ci liibar ndax nit ki olof da dañ naan loo doon day dëgër te nit dina donn mbir baa mu mujje pusa mu réer ci loxoom te ndono gi ñu am ñaananu yàlla mujje puso bi mu réer ci suñuy lox ci suñu maam yi la bàyyi ko di profité ci occasion bi di nuyu njabootam gi yëpp yàlla dogal sama woy jur wu jigéen doonoon taawam muy alaaji Njarka daan tàggal yonent bi Seydina Isaa Ruuhu Laah daan ànd ak moom di ko di ko jàngal di ko woyal yàlla dogal mu meññe ci sama waajur wu jigéen mu nekk ci moom itam mu jur ci samay mag ku ci mel ni Isaa Issa Niang mu nekk ci kooku nag moom ma tàggat ci lii nii ma nekk mooy moom moo fi taxawoon léegi ngeen koy seen yàlla na yàlla barkeel waaye nag yàlla dogal bi ñu ko doonee bari nag mu doon suñu bëgg-bëgg ñu bëgg ko opte ko def ko mu nekk suñu suñu léppi àddina ak àllaaxira ndax xam na ni buñ ko jàppee rek taraxuñ ci dara lépp lu ñuy ut ci àddina mbaa àllaaxira lu mu ci mën a doon dinañu ko am ndax lu mu tëlee amul. incha allah ñaata album nga am. man nag yàlla dogal na maa ngi def naa ñaari album. ñaari album parce que maa ngi gis léegi euh, sànq sa kii bu mujj euh, kii bu mujj bi nga génnee euh, ci YouTube yaa ngi ci wëy la Chérif Chérif Abdoulaye moom nga mujj wëy ci li may ci li ma gis lan moo la inspiré à ce que nga wëy ko moom. waaw ah, Serigne Ablaye moom moom mooy moom lay neex. mu jël ay mbiram def ci suñuy bopp waaye wayu mujj bi nga bi ngay dégg nii mooy yaa di yàlla dogal na doomam ju ñuy wax maam alsaan ci moom la yàlla jaarale xalaat boobu mu wàcc ci ñun ñu liggéey liggéey boobu di ñaan yàlla na yàlla barkeel ko di ko siyaar moom itam di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax mais nag li ñu way sëñ Ablaay moom bari na macha allah ci waxin bari na ci waxin waaye defaguñu dara jëm ci moom ndax suñuy yéene ci li ñu ko bëgg a bàkk ëpp na suñuy njort mënuñu ko xalaat ba tax na lépp lu baax lu ñuy yàq jaam yàlla rek yaakaar naa ni man su ma ko déggee sama xel di dem ci lu dul rek ma yàq ko Serigne Ablaye noonu laay dindi ak moom. est-ce que tey yaa ngi xalaat di def ay concert di def wala yéen comme ni koy waxee ay takkusaanu Baay Laay yaa ngi koy def wala. waaw loolu moom ñu ngi koy def yaakaar naa ni bi ñu ko commencé def yàgg na. maanaam di def ay entrée wala. waaw daan naa ko def nag di def entrée fii ci daara Serigne Cheikh fi laa ko njëkk a defee daan ko def entrée waaye après gi dama ko bàyyiwaat def ko gratuite bi ma koy mujj def ci maa ngi ko defee ci ëtt bi nga xamante ni mooy ëttu waareen deetu Seydina Issa waaye yàlla dogal na macha allah kenn xaju fi kenn kenn xaju fi boo duggee ci YouTube bi di nga ko gis euh, ñu ñaan yàlla di ko yàgg def. di ko di ko gën a yokk tamit muy gën a yokk ci barke Baye Laay loolu daal la ñuy euh, wax nga léegi si say wax que ne am nga ñaari album est-ce que yaa ngi programmé album yi depuis kañ la génn ak tamit ndax yaa ngi programme yeneen album yu wuteeg ñaar ñi. waaw ñun moom toujours rek ci programme yi album la ñuy nekk ndax toujours rek ñu ngi xalaat lu bees di xalaat lu ñu mën di bëggale soppe yi ñuy xaar ndax nag loolu rek la ñuy xaar ci ñun chaque jour ñu tëju xalaatal leen. génneel leen wayal leen mu neex ci seeni xol ñoom itamit ñu koy bëggee ndax nag ku nekkul ci lii rek nekk ci leneen te mag mi dafa wax ni lu dul diine duy teggin toujours ñu ngi xalaat ñu gën a yokki suñu album. ñaata single oh, ko nag. na daal. waaw ah, ñu ngi sant <laughs> yàlla bu baax rek mais jàpp ma ko kon nag macha allah chers internautes KS TV yéen a ngi toujours ak seen mbokk binus ci seen émission bi di GPS Tour comme ni ma leen ko waxee woon GPS Tour nii rek lay def képp ki nga xamante ne ci li ngay yëngu rek la lay indi la lay indi fësal la ci lu baax kon nag dañuy continuer ak moom rek ci question yi Mame Rane Laye euh, question bu ma lay posé waar rek mooy euh, est-ce que tey booy génnee cassette wala ngay génnee album da ngay am ay jafe-jafe ci sa liggéey. waaw man nag eh, toujours rek damay sant yàlla quoi ci côté yooyu maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax sant gi may sant nag damay wax ni wax naa la ko sànq ñun ki ñuy way di ko liggéeyal moom mooy def suñuy poos lay tax bu ñuy dem ca ca foofee du ñu am ay jafe-jafe ba tax na waruñu tàllal kenn loxo kaay leen jàppale ñu ci li ñuy def eh, ba baax na nag bonul baax na ndax eh, àddina kenn mënul ku ñu dimbali rek moo fi nekk waaw te nag ndimbal euh, la woykat bay wax naan na ca fekk loxol boroom looloo waral lépp lu ñuy def dañ ciy jiital suñu loxo pare ku ñu ciy fekk nag te yàlla rekk tax nga fekk te yàlla rekk tax ndax ñu nit li ñuy def yàlla rekk ñu koy def waaw jéem defuñ ci pour ci dara yàlla rek lañ ciy wut bu ko ci amee. tey jii su ma la waxoon lan moo la gën a naqari ci sa àdduna lan nga may tontu. lan moo ma gën a naqari ci sama àddina. ah man de wax dëgg yàlla naqaru àddina de amuma ka amuma ka de. kon tey jii su ma la lan moo la gën a neex ci sa àdduna aussi la nga ma. gën a neex ci sama àddina mooy li ma yàlla bind waroon ma def leneen waroon ma xiir ci leneen xiir ma ci gëm bàyyi la ma ca gën a ci neex nag mooy li fekk jamonoy Serigne Ablaye fekk xilaafaam man lii moo ma gën a neex ci sama àddina aw ma leneen. lii rekk ma ci neex. macha <laughs> allah ma yaatal fans yu lay xaar parce que amaana sax am nga fans yi nga xamante ne sax duñu ay laayeen mais ñu ngi bokk ci yeneen tarixa te ñooñu soo leen doon may lan nga leen di may comme dédicace. ci ban kër laa war a njëkke sax. ah foo commencé rek yow boobu macha allah. <laughs> sana ilahi bil munajaati وابدا اغنى يدي انهاج سرين بامبنا دل علي العلماء والاولياء قوتي وخوليا خير ذي فاخر خزاين الكرام باي سرين سالي ومكننا خزيدتي فاخر خزاين الكرام ولتخود أبدا خير مرام هديتي مجدات كل المليك كان مناديا وأغزاه المليك ما توجه نساء إله إلا الله loolu la ñuy béggale suñu mbokki murid yi macha allah <laughs> comme ni comme ni nga ko waxee rek ah tey si euh, murid yi nga dal léegi tey yeneen fans yi nga xamante ne aussi duñu ay murit kan nga leen di may talaat lana samsul huda kudifat duja bi man yatada Sëriñ Babacar Si neena seex yaa kaamilal anwaari wal asraari xuus bi yadi xadaa sëriñ Babacar Si nee na seex agnil xumamal mubgadan marma waxaat balaxal madaa sëriñ Babacar Si nee na seex rufi adlaxo agla musarxan maxriban seex lamma madaa sëriñ Babacar Si nee na seex ma wal wujud ay judihi haani yabi baxran nadaa tala adilana samsul huda ajaku zibat dujaa bi ma niatada ah macha allah lii moom kenn du si yokk dara xanaa rek ñu ne lan mooy sa baat bu mujj bi nga xamante ne euh, moom ngay tàggatoo ak internet yi lay seetaan waa xanaa di santaat yàlla rek di ñaan Serigne Ablaye mu yàgg fi te wér comme ni ma ko ñaanee woon ci tàmbali bi di ko ñaanal mbooleem xalifa yi di ñaan euh, site bi yàlla na ko yàlla yëkkati ba mu ba mu ba sut ndax nag wax dëgg yàlla ki lay wane wane ko te comme que yéen ñuy wane ñun itam dinañ leen wane ba àddina xam leen te lu ñu mën ci ñaan dinañ leen ko def di ñaan yàlla na yàlla yokk leen ñaan gi nag maa ngi koy ñaan ci turu groupe sopp Seydina Limamou ak njabootam gi yëpp di sàkku itam ci yéen ñaan ngeen ñaanal ko yàlla gën leen a defal jàmm ci barke bàyyi laay war ma yonte yàlla ay saa kontaan nañ bu baax euh, tey sa loolu mooy sa kii bu mujj sa sa tàggatoo mais aussi dañ lay laaj aussi nan ngay sa waaw ni ñuy waajalee appel moom xanaa sant rek ak mbégte mbégte gu mat sëkk rek mbégte gu yaatoo yaatu rek la ñuy waajalee appelu Seydina Limaamul Mahdi bi di ñaan yàlla yóbbuñ ci te may nu ci xaalis bu baree bari nag buñ ci mën a defaat ba mu jeex ndax dafay wax damay faral di wax ni bokkul ci ngor nga gëm bàyyi laay yaakaar ko appel ba appel jeex te amewoo bor loolu bokkul ci ngor ñun dañu war a pare appel kenn ku ci nekk di fay bor ndax bàyyi laay war na nu jaral lu ëpp loolu kon nag maa ngi koy waaj ak mbégte di ci woo àddina bi yépp nag di ñaanal ki nga xamante ni sang yi nga xam ñoo ko war a taxaw mi Pape Modou Lamine ak ay rakkam yàlla yàlla defal leen jàmm te may leen ndam ci seen woote maam gi bu baax baax a baax amin incha allah ñu ngi ciy woo àdduna bi yëpp fa la ñuy jaaree rek daanaka incha allah rek suñu émission yaakaar naa ne lu ñu leen fi indil tey fii si Cambérène neex na leen euh, li duuf ci nag li lépp xajul ci cin li dañ leen di jox dañ leen di euh, jox dig daje rek ci yeneen i émission ak yeneen i ak yeneen i GPS tour ak yeneen i ak yu mel ni Mame Rane ma leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah ak seen mbokk Binuche يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ci barkeem